Mm. a beaucoup de peut-être surprises yoo xam ne dañu war a ñëw. c'est ça wala man man dama am benn dafa mel ni honorable dafa bëggoon siif. dafa bu ma jàpp rek. Mhm. dafa mel ne léegi justice bu waxee Ousmane Sonko. moo am dëgg rek ci la justice baax. entendre les gens quoi. bu justice ne Ousmane Sonko dëgg rek ci la baax. bu Ousmane Sonko ne bu justice ne Ousmane Sonko amul dëgg ci lii rek kon justice baaxul. kon daal lañuy ñuy bàyyi ba ba mu jeex bu dee Ousmane rek moo am dëgg ci la justice baax bu dee Ousmane amul dëgg rek kon justice baaxul. Mm. c'est du grand n'importe quoi. Mm. li ni du ay plateau yi de. Mm. ay avocat ay avocat la suivre juge nii lañ ko fi defoon juge Keita vous l'oubliez yéen a ngi naan ñaar am na ñett wala ñeent. Mm-hmm. juge Keita boo demee page am yeew yi ak Pastef rek lay partagé. nit ñi xamuñu ko woon avant moo joxe verdict dañoo génn naan il est en de passer la commande de l'État te ndekete li muy wax ça arrange Ousmane Sonko bi nit ñi demee vérifier moom bu da bu génnee juge am page am sax il soutient Yewwi ak Pastef allez ah, kooku nan lañ koy juger mais arrête tout kon bu amee lu favorable Ousmane rek ci la justice baax. bu amee lu ko favorable rek justice baaxul. Oh, tiraillement ci justice. loolu am ci àdduna bi yëpp loolu propreul Sénégal ku kuy suivre Trump moment bi da nga naan yenn procureur bi ndax da ko bañ diw ndax da koy libéré diw ndax da ko nangam moo am France. Mm-hmm. France waay. moo am États-Unis France tey France tey Sarkozy. Mm-hmm. day wax ni magistrat tel ak tel yi dañ maa bañ. dañ may xeex parce que nangam. Mm. loolu am fépp ci àdduna bi. parce que intime conviction la ñu wax. ci juge mooy bu dégloo ba pare ci li ko droit may li mu gëm intime conviction am lay àtte. ñenn ñi ñu indil leen comme sabas yi ñu gëm seen intime conviction dañ ko war a réintégrer <coughs> ñu indil waayu dakaar bi mu gëm ni intime conviction am dañ ko war a réintégrer. moo ne bëri na ñu ni woon ñi nga xamante ni ñoo nekk li justice ba am Ziguinchor du justice su Dakar cour suprême da koo jox dakaar pour dakaar def lu ñu bëgg. arrêtons. Mhm. oui mais mhm. Gadiaga non non baal ma ma jeexal malal dagguma la non non baal ma jeexal. li ma wax daf ma intéressé. parce que des fois day sànni damay yërëm day mel ni dafa mu peur. comprendre li ma justice bii. tey magistrat yi ñuy tàccu lañ doon bind fii di wax magistrat bi ni diw la tudd doomam nii la tudd fii lay jànge fii la dëkk di leen menacer ñooñu après ngay xam sax ni yow peut-être li ñu àtte yow la gën a arrangé il n'y a pas d'alternative à la justice loolu laa mës a wax et gëm ko justice bu baax nag